Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ñaari abdu yi ñu tudd ci contrat d'armement yi ñuy wax fan yi yëpp ci réew mi mu di Abdou Karim Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo am na meneen abdu mu ci dugg ñetteel leen mu di Abdou Karim Fofana mooy ministre commerce consommation PME wëlbatukki doon porte parole gouvernement bu Sénégal l'observateur nañu ndombal tànkam loolee nag moo ko dugal ci wax ji ubbil yéenekaay bi moom porte parole gouvernement bu Sénégal di Abdou Karim Fofana leeral na wax li ko tax a jóg moo di wut ay matériel technique ay matériel logistique ay matériel transport communication yu ñu war a baaxee service yu ministère environnement ak développement durable ngir dooleel leen ba ñu gën a a xeex àll bi ñuy gor di yóbbu di coupe illicite de bois naka noonee te feu de di daay yu bari yi ñuy gis ci réew mi moom Abdou Karim Fofana mu doole ci ne ba fi ñuy waxe ni opération boobee ñuy wax mu jëm ci jënd ay ngànnaay ki jumtuwaay amul benn dërëmu Sénégal bu ci duggagum ndax état bi su commandé du fay li fekk ba mu jot ci génn gi mu génn démb moom Abdou Karim Fofana ak li mu wax ci coow li enquête dina kay ni mu ko gisee moo di état baa ngi défendre boppam réew mi quotidien feelu ko ba dolli ñu ci moom it ne kilifay réew mi ragg nañu seenub der ba mu set wecc boole ceekit leeral njuuj njaaj yi ñuy wax ne dafa am ci contrat d'armement bi ñeel ab marché bu toll ci ñeen fukki milliards ak juróom yu teg ñetti téeméeri million jëm ci jëndi ngànnaay vox populi nañu gouvernement bi wedd wuñ ne marché bi am na donte sax teg nañu ci jëmee ci force de défense yi las si nañu secret défense ci la état bi sukkandiku ngir wax ci waxi contrat d'armement yi suñum réew di Sénégal mi ngi wéyal jéego yi muy teg ngir doomam gën xarañ ci seenum njàng soleil national moo ko bind ci xëtamu njëkk ndaje mi amoon démb ca kees ñeeloon pose première pierre bu classe préparatoire yi moom la yéenekaay bi xëyee yéenekaay beneen bu ko xëyee moo di journal las mi ñu bindal ne Macky xam xam-xam am yi fiy jóge di dem ci yeneen réew ñu dakkal ko njiit réew mi Macky Sall direct news nee nañu dem nga mu demoon démb ca kees feeñal na bu baax baax kujje mu di rivalité gu gi am ci leader benn bokk yaakaar ya ca benn dëkk ñaari gaar ne am nay responsable politique yu bari yu fare ca diwaanu kees dañoo boycotté wisitu président Macky Sall bi woon démb Mbaye John Maodo Malick Mbaye Alioune Sarr ak Habib Niang yéenekaay bi nee nañu teguñu fa seen tànk tànk ak tànk mbagg ak mbagg ñu gàntal pexe troisième mandat ci fii la société civile bi Y'en a marre compagnie ñoo ngi avertise Macky Sall ñoo ngi koy tiinu it ngir mu respecté constitution bi sàmm kàddoom ndax góor ca wax ja mu bañ fay wax waxi troisième mandat ne jàmm gën troisième mandat tribune nañu lu mat fukki kuréel di organisation ñoo takku ba dëgër taxaw temm ci lànk kandaare bañ ba tëdd ca naajo mbiri troisième mandat Sud Quotidien ne ko moom kay génne nañu Macky Sall ci course bi te dara xewagul dem nañu sax bay sàkku ci moom Macky Sall mu defub déclaration gindi askan wi wax lu leer ci mbiri mandaam bi ñuy jaaba jonge bu ko defee réew mën a dund ci jàmm akuk dal googee ne day mobiliser wu ngir xeex troisième mandat Macky Sall le vrai journal li mu bëgg xam moo di lan mooy seenub dayu dëgg-dëgg maanaam lan la ñuy peese ki xëy di peese ak a natt Ousmane sunk mi ngi ci xët mu njëkku journal La Tribune Samba Sall la mooy maire bu dabali yéenekaay bi nañu kerak ba mu génnee ci ndaje mi mu doon def cëb commune jëmoon ci jébbal ay kit scolaire élèves ya cëb commune am fa la dalee ci kaw njiital parti Pastef fii di Ousmane Sonko ba xolam sedd Samba Sall nee na Ousmane Sonko imposteur la manipulateur la li muy def tudde ko nemmeeku tuur mu ne defu ci dara lu dul tuur askan wi lëndëm li leer ba leer moo di kii di Youssou taxawalaat na beneen usine ci réew mi l'observateur nañu impact safa groupe la tudd ab usine d'impression la ak packaging bu nekk ca jëm ñaajo fukki milliards ak ñaar la ko taxawale usine boobee di impact ak li mu mën a impacté ci koom-koomu réew mi l'observateur mi ngi ñu koy wax ba di ñu wax it ne tey jii ci ngoon ci la ñu koy ubbi président de la république Macky Sall moo koy inauguré NCA assurance